je vais me présenter officiellement à sa famille. Ouais, vraiment, il y a mon profit quoi. C'est normal, je l'aime. Bah, bah, demain, je vais faire que la mën a xamal daal mooy ah. jamono ñu toll ci kër gi xam nga mooy jaat jamono jamonooy rëkkante eh, rëkkal baa ma rek su kay ne yow yaa gën a xam xel mi duma la mas a may ko bokkulul diine ëmb bi dafa bari coow wax ji bu beure lepp yaw la aduna bi yeb yëgal nga len ko. mais man kan la ko wax samay non kessela ko wax. yow jeenama lan moo tax nga soxor lan moo tax nga soxoree ma jeenama lan la la def.